summa jaa'u li jahlihim yowma uhudin fi xamiisin xuyuluhum bil jimaali mu ne summa jaa'u topp ñu dikkaat ba tey amuñ jom summa jaa'u ñu dikkaat li jahlihim ngir réer gu ñu réere yàlla yowma uhudin bésab uhud montagne la boo xam ne bala nga koo jekku nga jóge aéroport Medina jëm si biir Medina ba jàkkaarloog moom ndax ci da ngay gis beneen doj wu tudd Saïr ñaari doj yooyu da ngay eewu ci àllam uxut ne uxut bàyyi ma baraam ma xool ma nga leer man mu yonent moo ne uxudun jabalun yuhibbunaa wa nuhibbuhu ne ne uxut montagne boo ñu sopp rek ñu sopp ko mu ne Saïr nag mooy safaan bi mu ne xool Saïr mi ngi mel ni moom aw niir a ko ma nga lëndëm ba wallahi dana benn waaye mës wax ne waaw jullit ni ñuy tuumaal mel ni dañoo amul xol sax moo diine joo xam ne waxuma nit ak mbindeef muy nokki sax waaye xeer yi sax dañu leen a bëgg xeer yi bëgg leen bu leen nit ñi siiwaroon jàmm rek am dégg dégg nga yooyu réflexion jabalun waxi jabal jabalun nuhibbuhu <laughs> su ma jaawul yow ma wax ni fii xamisin ci ab xare boo xam ne xuyuluhum ay fas seen dañoo ngand bëri bil jimaali dañ koo jaxaseeg ay gëléem itam wala ña nga rëy ba mel ni ay ay ay gëléem waaw maali bàyyi dafay woy nag fi mu ne mu ne hazamuhum dàq nañ leen gañe nañ leen waaw gars yi capité aydan beneen yoon kon Uhud gañe nañ leen gañewaal leen ci maanaam gañe nañ leen ci ci Badar gañewaal leen ci Uhud wanaaloo te ñu am ñoom xéefar yi inxifaadan ak suufe xeefar buñ ca maasoon ci kaw léegi ci suuf lañ la maas mus <laughs> naa mus naa bëgg a xuloo benn su xaritu bàyyi ku baax tul Abdoulaye Wade nekk Hakim loolu dëkkoon ñaari tali mooy góor gi mu noonu baraam buñ lay ulloo nit ñi yeewuñu ñi ma ci boole de manu ngaa noo def mu ne ma takkee jabar at sàngam la sama borom bopp musuma fanaanoo dépense ba tey jii te musuma dëñi te musuma tëppale parce que ah, kon war nga ñoo waxal <laughs> xam naa mujj ngi ci moom moom moo dafa dafa gis benn waa Mérina bu takk bu ngoro fenn ci Dakar après ñu may ko ci saa si après yëf yi mu kii mu ne waa nee ko Ndar ak Ndakaaroog fu ne yéen ñi wër sëriñ bi fu ngeen labal ñu may leen waaye nag problème bi xam nga fu muy jóge ma ne ko ah, mu ne ma lu xaji ci li rafaa lu ngeen koy liraabe ma ne ko dafay rafaa mu ne waaw ñëpp nag rafaa lañ leen séentoo rafaa mooy xaalis bu yomb ndax xam nañ sëriñ bi faalewul xaalis bu ñu leen fekk ngeen xafal nag ma ne ko man xafaluma nag man boo ci <laughs> ma ne ku ñu séentoo rafaa boo xafalee mooy tos ndoro li ñu dañ jàpp sëriñ bi faalewul xaalis <laughs> ma ne ko wax dëgg faalewul xaalis mos alaaj ah, waaye da sëriñ bi waaye mu ne ko alaaji ci ngoro Casamance ko xaw lu ko aajo mu ne ko waaye xaalis du yàq jabar waaji maanaam joxe dépense jabar ja normal moom la kenn mënut a bin bàyyi ne bin xifaadil ci sabab si suufeek yéefar nag nil naa lañ amee ñun almaali kawe ñoom ñi ngi jëm suuf ñun ñi ngi jëm kaw xaalafu taaha id araada ilaahi xayra fawzin min da alqitaali algaali kassaru linnabiyi ixda sanaya hushima dercu fawqa taaha alaali mu ne xaala foo wuute nañ ñoom saaba yi taaha yonent bi te moo xam ñoom xamuñ moo jiite ñoom jiitewuñ kooku nattu la ndaxte daf ne leen yéen rumaatu yi fii bu leen fi jóg bu ngeen gisoon sax ñu di ñu fukk bu leen jóg fii yéen position boobu position bu dominé la njëkk ca kow montagne ba mun nañu fett gars gaay gars yi duñu ñaan lu mun di xew yéen buñ gañeek buñ ñu gañeek lu xew bu ñu doon fukk sax yéen bu leen jóg fii yani muy muy muy maanaam muy instruction militaire ferme nag ci nu nubuwa xam nga lii nattu la bul soon loolu mu ne xaala fuuta waaye dañ gis rek jëw la mu njëkk bi yéefar yi daw rek xam naa ne saaba yi du ñoom duñ am njaay njaay xam naa ñoom waaye ma ne gaañaa ngi jël màng gi bàyyi ñu xam nga fitna yi àddina ba ñu wàccee rek foofa nekk sax rek boobu Xaalid tuubagul ak ni mu mel ci xeex ñu daal jaar ci gannaaw fële rek kii gars moo yàq kii moo yàq xeex xeex ma diggante diggante bi mu yàqu mu ne xaalafu taaha isra is araada ba nammee ilaahi suma borom xayra fawzin gën ji texe gën ji ndam min zal qitaali ci bi la xare alxaali buy aji cher lool ngir lam représenté ba yëfe jaxasoo rek yëfar yi daal di dugg ci jullit ñi Euh, yonent bi ñu gaañ ko ndax kasaru damm nañu li nabi ñeel yonent bi ixda sanaaya benn ci bëñam yi hushima mm, najeef na ak diru boobam koog ma ci kawam not not nañ ko ci kawam fawqa taaha ci kaw yonent bi alaalima yaa ji kawe euh, gaañ nañ ko ci bañ mi sax dugg na ci lexam tout ça alors euh, diru bi gaañ na ko seytaane yuuxu ndax am na possibilité jaxase mel ni ni tey wax xutila muhammadun muy xabaar bu terrible ko am nag saaba yi mara mara détaillé ñu daw am ñu dajeeg ñoom neen ñu ne lu ngeen di daw ñu ne euh, yonent shahid maanaam dee na ñooñu ne leen yéen bu yonent dee lu ngeen di doy dund xam nga position yi déjà rawante la fekk yonent deewul alhamdulilah mu ne wa mada xamsatun shahidan jalil alxatbi ayni tabki li faqdi simaali mu ne wa madaata na mooy wéy na xamsatun shahidan mbir mu muy aji shahid ku dee ci xare ànd ak yonent bi shahid nga am na yeneen shahid façon nga shahid itam ba mu dee jëlilal xat bi mbir mu muy aji màggi mbamb maanaam musiba mu màgg la dee ak am sa bàyyi na ay sama bët maanaam ñaari bët yëpp la ci jublu tëb kii mi ngi jooy li faq di simaali ngir ñàkk ngi ñàkk ndimbal kuy tàpp kuy yore muy Hamza Hamza ci ab jeysu ak benn umma représenté lu bare bare bare bare waaye dañ koo fexeel ba rey ko waxte muqaatil boo xam ne yow benn mission rek nga am siwéral diw mi rek fexeel ba rey ko dig ko ci lu rëy muy Wahshi koo gilam fexe na ba ba rey ko mu topp ko nag ante ko lu ne jaaxle na ko ba bés bi mu tuubee nag xissa bu gudd la yonente dimbaleen ma rek dimbleen ma rek yëkkati ma yëkkati ko gaa yi woo ahlu bayatu ridwaan waaw di gaa yi gaa yi gaa yi mel nag foofu la benn si ndaw am uh, bés boo xam ne moom rek ko am moo tax taarix taarix nettali ko ndax moom wan naa ko keroog ba mu déggee ne yonent dee na rek moom mel moom dafa mel ni ñu ne ak mbëq di laajte rek ana yonent romb na jëkkëram mu dee mu romb doomam mu dee mu romb euh, càmmiñam mu dee faalewu leen sax ba egg ci yonent foofu ñëw gis ko laal mbubb mi ne ko jotee naa la suma ndey ak suma bàyyi gannaaw dara jotu la rek laa ubaal yi Hamza shahid na bàyyi ne daxikat inda daaka jannaatu adnin wa bakat aynu ahmad al hattaali way bu bayti bu rafet la bàyyi ne daxikat reena inda daaka booba bu Hamza shahide jannaatu adnin aljannay sax aljanna ngay ree di accueillir Hamza wa bakat te jooy par contre aynu ahmada bëtëb yoon ci yàlla Muhammad Ahmad al Hattaali kay dotti ak koon rongañ xam nga yi jox muqaabala ay ay ree fii ak ak ak ak réception ak jooy fii ci bëtu yonent bi te yonent xam na ne xam sa aljanna la jëm li kulli maqaamin maqaam ku jooy xam sa kenn du la yedd hayyaja saxba inda daaka maqaalun maa tataaha al amiinu fii dal majaali mu wax li taxoon xër ji bi am mu ne hayeja yëngal na naqatal tiital saxba saxaaba yi hayeja yëngal na leen inda daaka booba maqaalun kàddu gu ne wax ju ne maata taaha maata taaha al li leen yëngal mooy liñ dégg ku wax ne yonent bi faatu fiidal majaali ci bile ci mile mile lef maanaam maydaanul qitaal majaalul qitaal toolu xare bañ nekkoon champ de bataay bu foofa yonent faatu na mu ne loolu moo yëngaloon te wax nañ dëgg ku mu yëngalu dootoo yëngalu suma maalu ila alfiraari jamian muqriniina aljimaala aya mamaali mu ne suma maaloo bañ déggee wax ci bon jooju suma maaloo topp ñu jeng ilal yi jëm ci daw gars yi dañ leen doon yer saa sox yaa furaar mi ñu njëkke Medina <laughs> yonentu défense ne hum kuraar wala su furaar <laughs> yonentu défense leen parce que la leen dal comme dali dam mu ne dawuñ ñooñ dawuñ dañ doon ak di song farra ak karra bokkuñ kii dafa joxe gannaaw kii dafa joxe kanam suma maalu ila alfiraari jamian muqrinina mbir mu ñuy way lënkale aljimaala gëléem yi ñu ñu jàng nag ayema maalin gépp ak jàng maanaam lim fat lim tëjee bayti bi moom la feddalee maalu suma maalu ayema maalin ila alfiraari jamian muqrinina aljimaala maalu ayema maal xaraju aye xuruj darabu aye darbin day feddali suma aadu lamma raaw nafya mawti lmustapha kullun basilun biqtitaali saaba yi nag léegi leer na ne yonente ngi nii faatuwul shayitul ñu ne suma aada topp ñu dellu fas dellu gannaaw gi gannaaw badalata yaawalati loolu xew na moom aadu lamma raaw ba ñu jisee nafya mawtil mustapha dàq ak faatu yonente yàlla muhammad kullun képp ci ñoom baasilun jàmbaar la biqtitaalin ci xare maanaam ña ngay xare ak bravoure ña ngay xare hmm? ah bi nidaali bi nisaali ak ne biqtitaalihim biqtitaalihim ah, de xaw ma bu dee nidaal ci ci ci ci fettante naadala nidaalan ma rëdd fi aw rëdd ba xam léegi tudd na nag kon ahlu badrin tudd na ahlu uhudin bàyyi dafay ñaan yàlla nag di jot ko ci ñoom ne rabbi inni bi ahli badrin wa uhudin fal tutix lis diyaara tilkal maxaali wala maxaali ah mu ne rabbi yow suma borom inni man mii day maa ngi jottaliku bi ahli badrin ci ñooñ badar de loolu romb nañ ko nii moom daf ko indiwaat ah <laughs> waaw waaw non bi suma maalum moo war a jiitu maalum suma aadu moo gën a jub mu ne rabbi yow sama borom inni man mi maa ngi jottaliku bi ahli badrin ci ñooñ badar wa uhudin ak ñooñ uhud dina ñaan ne fal tutix yal dogal lii ñeel ma isdiyaara tilkal maxaal siyaare yooyee barab al waaw non yal na ma may ma siyaare bi xam nga wax naa bàyyi waxoon nag benn waay foofu ci ajam googu bi ko bi ko waa ne bi mu ne bi mu ne ñun xujaa yi jógee Afrique gu ñuul gi daanaka aj waruñu bëgg yónnante tax ñu ñëw xam loolu waxi muhib la gaa yi ñoom duñ ko war a dégg waaw ña nga ci commencement wahhabiya mu ne ko ndax ñun fi mu ne amuñ alal amuñ sécurité amuñ liberté waaw waaye yónnante tax ñu ñëw bëggu ko moo tax ñu ñëw